sportinya Assalamualaikum gars Assalamualaikum salaamaaleykum tay nak damay wax ci mariage u Abdou Cissé ak ki nga xamné moy Marie Louise contane nañu torop ah sey bi yàlla la jik yàlla na barkeel yàlla na yàlla may ay jabor yu barkel contane na ci torop begna lol teranga yi nice na lepp rafetlu non ko lenn dal lay ñaaw lu mon xam nga muy lan hôtesse hôtesse yi vulgaire nan opol nan noy ñewé xewu jamor yenu xew ba jël sen vêtement yi patel sen ween yi ba mel ku ne mel jaay ko tu mbuus ndox tak sen ween yi xana xamo sen ween yi sen solin gu bon gi amna ay boy yo xamante ni moom lañ def ko miniature ci youtube bi youtube da leena bloqué bloqué ñu dugal vidéo ba mat 2 semaines xam nga ne kon yéen ween baaxul opol ngeen wa Marie Louise mom xana ay morom yaayam la daan andal ñi ay mère lañ sax ku ne japp say ween patel ko melne wala di nga ne yaakaar won woon Sadio Mané day ci xew bi tan ci kenn pour takku ko trompé ngeen de Sadio Mané xam nga du takku ñu melne ne ñi xana ñom dañuy jaayu japp seen ween yi paccal ko ëppal xewu jaaboor bi yëpp yakal ngeen ko Sénégalais da nga koy jox we mu ne day jël loxo bi yëpp saram nday li way loolu nak la ci ñaawu caga nan vulgaire nan ba pare sax bo nga ndewee nga pata da ngay sol lu la jàpp waaye nan ngay tollee na ñay bëgg paccal say ween di sol lu kër xamul saram nday lolou bu lolou jalle yalla ni yalla defal merci